asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi dellu siwaat nanu di leen nuyu di leen siyaar di leen ñaanal di sàkku ci yenn nu ànd ñaanal suñu kilifa suñu boroom tabaraka wa gën leen fee yàggal te dafa leen wér gu ànd ak kàttan ba ñu àggale seen yéene ci lislaam ak ñooñu lislaam ni ñu ko baaxoo defee ak yéen saa yoo xamee ne ndigal bàyyikoo na ci xalif général de Mouride Cheikh Mouhamadul Mountakha am na Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na fi yàgg loolu te wér noo ngi nii toog ak sëriñ ma Maam Mor Mbacke moom sëriñ Falilu mi nga xam ne yàgg ngeen miin jataayam ak kàddoom ci kanam sëriñ bi sëriñ bi doole ko ci yu bari dénku itam liggéey bu am solo di ko faral di jox kàddoom itam mu di ko yëkkati jataayu tey bi bokk ci loolu. nu war koo déglu mu jotal nu kàddu yu bàyyi ko ci Serigne mun taxa te bokk na ci kàddu yi nag waajal tool yi ak yeneen yi ci aju yëpp nu ànd déglu Serigne Mamour Mbacké moom sëriñ Falilou. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani yi bokki taalibe yi bu nu sante sunu borom. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ngërëmul yàlla gën di wàcc Serigne Touba ak waa këram noo ngi nuyu bokk yépp di leen wax asalaamaaleykum wa ay kàddu yu bàyyi ko ci kilifa gu tedd gi a Cheikh Mamadul Muntaqa xafisahullahu wa ayyadahu bi nasrihi mu jëm ci noonu mboolem taalibe yëpp nam ko defe woon daaw te jële ko ci kilifa yu tedd yu màgg yi ko fi jiitu woon moo di bu waxtu wi jotee ñu soññ taalibe yi soññi jullit yépp soññi taalibe yi ñu delluwaat ci tool yi tàmbali liggéey bi mu wax ni mi ngi soññ ñépp ñu dellu ci tuub raxasaat xol yi rafetal yéene yi sellal jëf yi ñaan ci barkeb sëriñ Touba nawet bii nu jëm sun borom barkeel ko ten muurloo ko mu wax ni mi mi ngi jox ndigal àllarba ji nu jëm muy ginnaaw suba ñëpp delluwaat ci tool yi tàmbali ruuj bi yëmaloo ko nag ci baykat yi rek ndax nee na sëriñ bi lépp la am te bu sañoon képp ku laal ci sëriñ bi looy def looy looy liggéey dana barkeel moo tax mu baykat yi ñoo ci toll ci waxtu wii waaye ñi des li liggéeykat yi ci des yëpp mën nañ ci def seenu tàmbali muy ñi yeexantu muy borom métier yi muy ñëpp rek wax na ni nag mi ngi ñaan ci barke borom Touba sunu boroom àggale nawet bi baaxal ko ñu jariñoo ko mu wax ni nag li ñu war a jikkee mooy li ma tàmm waxoon ci njëlbeen gi mooy tuub dellu ci yàlla jéggalante suñ biir suñuy suñuy bàkkaar lu waaye mën a dimbalee sa moroom nga dimbalee ko ko bala ñuy àgg ci bis bi itam fu waay mën a tollu waxut ñu daje fenn waaye nu waaye mën a jànge alxuraan ak mu jàng ko door a xëy àllarba ji tàmbali ji liggéey bi mu ngi koy mi ngi ko mi ngi koy yëgal ñëpp ndax lislaam day ñaari liggéey moo ci am liggéey bi nga xam ne mooy jëm mooy dëgg dëgg lislaam te mooy julli waxtu juróom war weeru koor natt asaka aj màkka loolu mooy liggéey bi nga xam ne moom la cëri cëri yi def te saa bu nekk ñu war cee nekk waaye liggéey bii muy santaane ñu ñu tàmbale ko nag te fas ci yéene te mu fas yéene ñaanal la ci ñu am ci liñ bëgg lépp mooy liggéey bi nga xam ne mooy tax ñu mën a def liggéey boobu di liggéey bu lislaam te moo di liggéey bi nga xam ne mooy indi luñ mën a luñ mën a jëfandikoo kon mu ngi ci soñ ñëpp di ñaan suñu borom defal na ci tawféex defal na ci ndam ñu jéggal suñu bàkkaar ñëpp bàkkaar jéggal suñu borom jéggal na ci suñ suñ biir dimbaleen ci suñ suñ suñ biir su ko defee lépp lu ñaan suñu borom suñu moom suñu borom danañu ko may kon loolu la kàddu yooyu la sëñ bi waxoon ni na mu ko defee daaw ñu ñu ñu waxal ko ko nañ ko waxalaat ñëpp dégg ko te jëfandikoo ko mi ngi ñaan suñu borom def jàmm ci réew mi defal jàmm jullit yi defal jàmm taalibe yi defal jaf jàmm ci àdduna bi yëpp loolu mooy yéenam ci liggéey bi mu liggéeyal sëñ ci Tuubaa ci jiitu mooy ñaanal ñëpp jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj mi ngi sant ñëpp mu ngi gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu li ci des nag ñu bàyyi ko Serigne moom Serigne Abdou Latif Latif dana ko àggale ay kàddu yoo xam ne moom moo ko waxal boppam mu war ko cee teg ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. mbokk yi dégg ngeen kàddu yooyu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha jaar ci Serigne Mame Mor Mbacke moom Serigne Falilou nii mu ko waxee nu waajale ko noonu te jëfe ndigal li ndax ci la sunu njariñul tey nekk ak ëllëg. nu jéem a tuubaat ci suñu borom sàkk sarax balonte ak jàmm jàng alxuraan fas yéene tàmbali liggéey bi àllarba incha allahu taala li def ci kàddu yi mu jox kàddu gi sëriñ Cheikh Mbacke sëriñ Abdou Latif. bismillahi rahmaani rahim. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw kàddu yi xanaa kàddu yi jëfe ndigal rek lay doon waaye sëriñ ma Moor kàddu yi jot na sëkk rafet na lool passé fa na lool matal na lool. ni ko sëriñ bi santaane woon defe na ko ni kon ñëpp noo ko déggandoo ni ko sëriñ Mamoor waxee yërmande ji nga xam ne naka jekk kilifa yi daan nekk ci kanam njaboot gi dañ ko daan amal njaboot gi ngir yërëm leen bëgg kenn ku ne la nga yëngu ko nga di ca jëlee loo jariñoo suñu borom te suñu barkeel ko moo tax waxtu wii naka jekk baaxoo woon nañ ba waxtu jotee ku fi nekk ci kanam njaboot gi di kilifa ñëpp jox ndigal nañ delluwaat ci tool yi liggéey waaye sëriñ Muntaxa nag bi mu yónnee ci sëriñ Mamor bi mu waxoo sëriñ Mamor na ko jottale kàddu yi nii ko sëriñ Mamor jottalee defe naa ñëpp dégg nañ ko jot na sëkk leer na lool ngir jiital la war a jiitu lépp mooy tuub jéggalu suñu borom dellu ca waaye sàkk sarax waaye dimbalante ca fan nekk kenn ku nekk la gën a jege nga am loo ko tànn nga dimbale ko kenn ku ne itam doo xam la nga mën ci alxuraan moo xam ab jukki la wala isim la wala laaya la wala saar la boo xëyee sam néeg bala ngaa xëy ci àllarba ci nga jàng ko moo xam daante ñetti bayit xasida nga ca mën nga teg ko ca fa nga toog nga fet feddle fa si sa xol feddle sa loxo liggéey yi nag fas yéene gën a liggéey fas yéene sàkku ji ndimbal suñ borom ndimbal li ci liggéey bi nag suñ moom waroon na ko liggéey bu njëkk bi mooy jaamu yàlla gi ñu sant war ko def suñu digg suñu borom ni ci sunu si yonent saa salaam ni ko sëriñ Tuubaa di ko nu diglee waaye ñu nag sàkku ji nag tiyaaba sàkku ji addiye sàkku ji luñ ter tedd tedd ter la ji saako ji luñ ter luñ di yore njaboot gi te loolu lépp mooy fas yéene ñaqe ñaq wi nag ni ko suñu maamoon waxee yemut ci mbay rek waxtu bay nag daa jot waaye bisu àllarba bi képp ko xëy ba nga dem yëngatu ji da ngay fasaat ci sa xol fedd laxasaayu la nekkoon nga fas ci yéene dugaat sóobuwaat ca sóobu gu yees ba nga xam ne day mel ne dañ koy barkeeloo ci bidaayatul xidma bu ko defee kenn ku ne fa nga jëm nag ba fa yóbbaalee pas-pas boobu ci sam xëy doon donte ci métier la moo xam ne ca nga gotte wàcce woon bii war caa xëyaat nga xëyaat ci ak yeesal ak farlu ak fas yéene yàkkali ji kon nag ñun ñu jëm ci tool yi nag ku xëy na nga jàng la nga mën ci alxuraan ni mu wax donte jukki la wala isib la wala aw saar la jàng xas yi donte ñetti bayit la fas yéene xëy dem ci tool yi tàmbali ci tool yi nag bu ko defee boobaan danañ maa rafet njort bu baax ci li nu sëriñ bi ñaanal muy liggéey bi sotti te barkeel te muurloo ko danañ ci mën a am kon yàlla nañ ci sóobu ci bisimilah rahmaani rahim ak àggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin sëñ bi daa waxoon ne kàddu yu mu yónni woon ngir ñu dolli ko ci mooy xam la ne daa bëgg bokki taalibe yi mayaat ko ab diir na mu ko daan ñaane bokki taalibe yi ci liggéey bi ab diir boo xam ne dana ko wéet ba feeki fan ndax ku nga xam ne koor gi sax li ci des bëreetul ndax weeru barax la bi tàbbi na te lu mën a xew ko itam dana dellu si ci liggéey bi bala ñu am koor waaye ñu ko rek as diggante waree dellu si liggéey bi dana ko yëgle dana ko ci rajo yi fépp fu ko war a yëglee boobaa ku war a ñëw it da xam ne nga pare jaar ba ñëw waaye neen daal ñu may ko fan yi ab si diggante rek diggante as wéet ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye sëriñ Maamoor mii ñoo ngi koy santaat ci turu sëriñ bi ndax lii ko sëriñ bi doyloo da ko matale sëkk ci rafetal sëriñ bi da ko yónni woon yónni ci moom ngir mu yónni ko waaye na yónent bi lool ci Pastef ci taalibe ci sellal ci lépp kon nag naaw sëriñ mu yónni si woon ci moom jot li ko ndigal li nooy noo ngi koy santaat ci turu sëriñ bi ci rafetal gi ndigal li di ñaan yàgg ko seq kon dégg ngeen ndigal laa ngi noonu mooy waajal tool yi incha allahu taala àllarba ni ko sëriñ si waxee dégg dégg ngeen ko noonu te mooy bëggug sëriñ bi kenn ku nekk la nga nekk nga fas ci sa xol xam ne fas yéene ngaa julluwaat ci ndig wé àndaat ak ndigalal sëriñ bi sóobu ci la nga nekkoon rawatina nag ñi nga xam ne ñoom mbéy mooy seen métier incha allahu taala li ci des mooy itam bokk yi nga xam ne am nañu ak cofeel ci sëñ bi ak yitte nga xam ne jamono ju nekk dañuy bëgg di ñëw di ci moom di ko di seen aajo mu di leen ko fajal ci euh, kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ak yërmandeem ju yaatu ji mu yor yéene ko ñëpp jamono yi mu toll mu bëgg nag ñu may ko mu dallu daayira yi nga xam ne dañu di siyaare si ak bokki jullit yi ñu may ko nag fan yii mu dallu dallu goo xam ne moom itam day delluwaat ci ab liggéeyam rek feddaliwaat liggéey bi bu ko defee nag bu waree génnaat ànd ak ànd ak ànd ak daayira yi danañ ko yëglewaat nii ñu ko yëglee waaye fan yii nañ ko may mu dallu incha allahu taala loolu mooy kàddu yi noo ngi ñaanaat suñu borom gën fee yàggal Serigne taxaa te defal ko wér gu ànd ak wérle te wéralal ko ñii ko wër ni ma koy waxee jamono ju nekk wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.